asalaamaaleykum maa ngi nuyuwaat ñu ñuy seetaan ci mbokke internet univers TV yëpp maa ngi leen di siyaaraat di leen nuyu bu baax baax di amaan mbégte jàkkaarloog yéen di santaat yàlla bu baax a baax di ñaanal Serigne Mountakha basir mu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu laa koy ñaanale Serigne Cheikh moom Serigne Saliou di ko ñaanal njabootuk Serigne Saliou gépp di di amaan mbégte bu baax a baax ñëwaat ak yéen fii ci war a ànd ak suñu oustaz bii nga xam ne nii. Eh, dañ koy safoo Oustaz Alioune Sall àdduna bépp foo ko tudd rek mbokki jullit yëpp di ko safoo bala ñoo sori ñuy dugg ci waxtaan wi rek dañ koy jox mu nuyoo mbokku taalibe yi ngi lay siyaar bismillahi rahmaani rahim rabbi srah li sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli maa ngi lay nuyu di la fay nuyoo di nuyu sa caméraman di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu seetaan ci biir mi ak ci bitim réew di ñaan borom bi jataay bi mu def ko jataay bu am barke bu guddee mu am barke bu gàttee mu am ndax temps dafa cher jërëjëf. Oustaz euh, duñu la teelu yàgg li ñuy fi ñuy tàmbali ak yow rek mooy. Macron am na lu mu fi waxoon jamono yi ñu gis euh, ñëpp di ci def ay ñaxtu ba yéen ngeen defoon ci benn manifestation bu am doole Oustaz ñu lay laaj ba xam loolu dañ la caa invité woon wala yow da ngaa bokkoon ci ñu ko organiser. jërëjëf ci laaj bu am solo bi yu mel noonu kenn du la xaar ñu invité la ci ndax ci nga bokk kon invitation duñ ca yóbbu bu ñu ko déggee rek ca lañ bokk yàlla baax na ñut bañ bokkoon ci jotaayu préparation ba suñ ca wóoxatoon it mbokkuñ ci préparation ba it buñ yëgee rek dañu sol sunu dàll ndax màggal la gàmm bu xewee ci réew mi amu ci bu ñuy xaar suñu carte d'invitation dañu dem rek ndax xam ne dañ caa bokk comme Macron dafa am lu mu wax te lim ko wax mooy lislaam lim ko wax moo di sunub yonent loolu moom koy xaar ñu la cay woo ba muytul mën ngaa biddanti wala nga dem dem bu bu bu kii donc ñun xaar ñoon kuñ ci invité heureusement it yàlla def nañ ba ndaje ma amee ndaje ma di ko préparé ca lañ bokkoon wax ca la ci suñu xalaat euh, dem teewu ci encore. Mm-hmm. saas ñu gis ne teewaay ba am na solo sa xol tooyoon na ba ngay tuur ay xéewal euh, ginnaaw loolu coow judd ci. coow yi mooy ay wax yoo xam ne foog naa dégg nga ko euh, benn benn rapport bu ñuy wax euh, Karim xorom xaax euh, di ci di la ci sànni ay xeer dem ba naan yow waroo fekke jotaay bi ndax da ngay dangay ngay da ngay lekk comme comme alali nguur comme saar yooyu mel ni comme yow c'est ni mu ko gisee daal dem nga ca dem ngis sal la jërëjëf ci sa bi waaye ñu dañoo féetewoo di liggéey moo tax duñu tontu yàlla xam na ne comme ñu fekkoon ci suñu kër gi taxaw ci buntu kër gi di wax duñ la tontu loolu moom lañ jaayanteeg sunu borom fas nu ñoo tontu kenn ci lu wax ci suñu der bii ndax li ñu yitteel mooy diina ji jaa ji diina ji dem li ñu yitteel mooy bokk gi ànd li ñu yitteel mooy ñëpp ànd bokk ndeg ba di liggéey. moo tax wax na ma nii wax na ma laa wax na ma nangam wasbir alaa maa yaquluuna yonent bi deuxième leçon la ci jàngoon soo bëggee defar penc mu naa mu ne ko soo munta mu wax doo dem fenn wasbir alaa maa yaquluun lu ñu la mën a wax rek jàppal ci li nga jàppati te muñ kon ñu tam loolu la ñuy féetewoo incha allah jéggal ñëpp nag. if euh, yëf yi it man dañ naan ma diw na nangam diw na nangam parce que man du ma liir du ma déglu audio du ma seetaan vidéo lu tax. mboolem ñi liggéey ci maydaan bii ñëpp laa dencal cofeel ñépp nag te su ma dégloo lu nit wax ci man mën naa am mu wàññi cofeel googu moo tax du ma ko bëgg a déglu ndax damaa bëgg mucc ci was wisu fii su dóori naas yàlla xam na ko amul kenn koo xam ne ci senegal gii nga xam ne yaa ngi xëy ci diina ji lu mu tuuti tuuti te dencalu ma cofeel amut te loolu amul njëstal amul dara loolu la wër sama xol bi buñ ko xoran loolu lañ ciy fekk. lu tax parce que li may def lañuy def te it suñu mel ne mag mu baax mu ñu wax maam suñu Tuubaa radiyallaahu anhu suñu suñu suñu maam jooju daf ne. wala tuaadu man raaytum faahu man raaytum faahu yuxriju laa ilaaha illallaahu moo tax ñun fas yoonu yéenee tontu kenn mbaa wax kenn dara lu nu waay wax baal nañ la ñun nag duñ wax kenn dara bu soobee yàlla jërëjëf